tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina mooy bopp juróomi luy sib bi boo tàmbalee naa si jëm ca kaw démb waxoon nañ ci suratu mujaadala ne boo compté saari alquran yi baqara jëm naa si li saar yi digg bi digg bi mooy xas samia digg bi xanaa wax ñu bëri moo tax ma koy bamtuwaat li mu saa digg bi mooy xas samia te mu ngi nekk téeméeri saar fukki saar ak ñeent alquran boo ko ma tee bàqara jëm naa fi bu ñëwee ba ci suratul xadiid mooy nekk juróom-ñaar fukk mooy juróom fukk ak juróom-ñaar nett xam nga ñaari juróom ñaar mooy 114 baqara ba xadiid yi mooy 57 ci soo ci saar yi xasamiya ba naas yi doon 57 bu nekk lu mat bàyyi xel na sew sew yooyu dafa baax beneen mooy xasamiya ci jagleem boo xaajee alxuraan fukki xaaj mooy xaaj mujj bi mooy fukkeel bi alxuraan juróom-benn fukki isib la xam nga léegi juróom-benn fukk nag boo ko benn xaaj boo ko xaajee ko fukki xaaj xaaj bu ne ñaata isib la juróom-benn fukk boo ko defee fukki xaaj xaaj bu nekk ñaata isib la ah juróom-benn xasame bi juróom-benn xasame bu naata juróom-benn isib la kon mooy fukkeel bi mooy fukkeel bi moo tax saaru doy waar saabu doy doy lépp nañu lu borom bi la dégg nga boo ko xalee moom <laughs> da neex de boo ko doon boo ko doon saar yi dem ci lu gaaw a gaaw mu mu jaadala xasri mumtaana safi jumaati taqaabuni talaaq taarim mulki qalam ba 57 net la 57 net la net ëpp Yuusuf ëpp Yuusuf moo tax borom bi ni yu sabbihu dana mu sabbal dana bàkk lillaahi sax ñeexal yàlla munafiqun ca la bokk dégg nga yu sabbihu lillaahi maa lépp loo xam ni fi sama waat yi mu ngi ci asamaani juróom-ñaar wa fil ardi ak li ci suuf juróom-ñaar gaa yi ne lam bi nag xarfu xarfu ndolant la lillaahi ñu ne xarfu ndolant la ne borom bi nga xam ne almaliki mooy buur bi al quddusi bu sell wecc ci lépp loo xam ne yellowul ak moom mooy quddus al aziz mooy ki not ci nguuram al hakim mooy aji xereñ wallazi mooy ki nga xam ni baasa yónni na mu fil ummiyina ci ñi nga xam ne ko jóg ndey lañ ummiyina xam nga mooy kanam lu ko xam ne mënta bind mënta lii ñu ko ummiyu na mu juddoo ca yaayam ba tey noonu la mel ummiyu kon araab yi xamuñu woon jàng moo tax bi ni iqra mu ne ko man duma aji jàng maanaam man xawma ñoo boy moo fa yónni moom rasulan ndaw loo xam ni minoomum tukkee ca ñoom yatloo muy jàng alayhim eh, ca ñoom ayaati yi ay kaawteefam ya uy sakkihim mu leen di sellal lépp loo xam ni bokkaale la wa yuallimu mu leen di xamal alkitaaba téere bu tedd bii wali kamata ak njëriñ yi fi nekk yépp boraam bi ne nag wa nekkoon nañu ñoom wa in nekk ñoom yéefar ya am jàng wa in na waaye wa in nag kaanoon nekkoon nañu min qablu ca lu jiitu ñëwam gi nekkoon nañ la fii dalaa liñ ci cànk ko xam ni mu bi nin gu leer la wa na ak ñeneen minum tukkee ci ñoom ñoo war ñoo xam ne dañuy ñëw ci gannaaw ummiyin yi nga xam ne lamma yalhaqu xajee guñu xajee guñu bi mu ñoom mooy daguñu leen ci ngëneel bokkul lam yàlla xóode lam maa la wax xam lu muy tekki mooy saxaaba yi kenn mënu leen dab moo tax mu indi lam maa du ne mos a dab ba xanaa kay jéem a teg sa tànk ci seen tànk rek waaye dab leen moom ah déedéet fexe rek bu fuñ rek nga suul ko تكفو لو من امنا يمنك واي فين تكتا انك تكفو آه، لما يلا قوبين فاسنا يلا كوخ فاسنا وهو تيمم العزيز موي اجي نوتي نغورم الحكيم موي اجي قرن لو مو ديف نون دو جوم دي جاوالي مو خم لو نيه لا مو خم لو نقدي لا مو خم بكت لا مو خم تيس لا الحكيم فم كو ديف فوف zalika loolu nag fadlullaahi nga ne yàlla la goo xam ni yooti dana ko jox moom borom bi ma ñu saaw ku ko soob jox na ko yonent bi wallaahu subhaanahu wa taala mooy borom mu ngéñal gi alaasimi gu mag gi mu ni masalul lasina misalam gaañ nga xam ne amiloo joxeef na leen mi loo toggeef na leen rek mu neex a dégg toggeef na leen a tawraat pour ñu jëfee ko su ma topp lam yax mi loo wuñu ko dafa nekk duñ ko jëfee ka masalil ximaar mu ngi mel ni kii am mbaam moo xam ni yax mi lu dafa sëf asaaran ay téere yu baax yu bari xam-xam waaye du ko jëriñoo li mu saa jëlee mooy bari la ci jëriñ borom bi ne masaloo xaw misaalum nit ñi allazina nit ñi nga xam ni kaanoo nekkoon nañu bi ayat naa suñu bi ayati laay ci xawte fi yàlla yi nekkoon nañ ci xawte fi yàlla yi ah subhanallah masalul bi sa bonn masalul lazina misalam gaa nga xam ni bi sa bonn misalul xaw misalam nit ñi nga xam ni subhanallah bi sa bonn masalul xaw misaalam nit ñi alladina ñi nga xam ne waaw kay kazabo dañoo weddi bi ci alquran yàlla ji wallaahu subhanahu wa taala la yahdi du gindi mukk alqawma nit ñi nga xam ni azalimin dañoo nekk di way weddi yàlla boo ko di boo di ñi way tooñ dafay xat ndax tooñ ku mucc ci yombul waaye ku tooñ di tuub la yàlla bëgg tooñ tuub tooñ tuub tooñ tuub kon nag azaalimiina bii alkaafiriina la alkaafiriina yéen tamit nee na sallallahu alayhi wa sallam borom bi ni mu sawaree ci jàmm ko tooñ tuub mu na mu ngi mel ni nga am sa giléem mu réer la nga di seen giléem ga dama dem ba heure bii digg njolloor nga sonn tëdd ci ron ger ker gi di noppalu di nelaw far soo tëdd noppal di nelaw rek giléem gi waaxoo bu ñëw tiim la fóon la nga yeewoo gis giléem gi ñe na ngay kontaanee noonu la jàmbu tu mel ci yàlla noonu la jàmbu mel ci yàlla moo tax azaalimiina boobu alkaafiriina qul xam ne yaa ayyuha allazina yéen ñi nga xam ni haadoo ay yoxoon ngeen insaatum ndem da ngeen déclaré ne annakum naka yéen awliyaa ullahi yeneen xarit yàlla yi min doon naati walis nit ñi fa naw na ngeen mébét al mawta dee booy firi da koy tax da koy tàqale booy firi waaye booy jàng da koy taxañ fa tamannawul mawta booy jàng da ngay taxañ in kuntum nekk ngeen nag saadiqiina di wax dëgg ne yéen yéen xarit yàlla yi borom bi ne ah wala yatamannawnahu dañu ko mébét abadan faw bi ma ngir la nga xam ne qaddamat jiital na ko ay diim seen loxo ya wallaahu subhaanahu wa alimun aji xam bi saalamiin ca way ya pour waxal ne leen inal mawta naka dee gi allasi gi nga xam ne tafiroona yéen a ngi daw minum tukkee ci ñoom fa innahu naka moom dee googule mulaaqiikum dana mu dajeeg yéen de suma turaduna topp da leen ila alimul xaybi jëm ci ki xam ne fàddi yëpp wasaajata ak li teew mooy xam ne nëbbu ak li feeñ fa yu nabbikum mu xamal leen bi ma ca la nga xam ni kuntum nekkoon ngeen taamaloon di ko jëf mooy mu fay leen ko ku nekk la nga defoon rek mu fay la ko lu lay wax mu ne yaa ayyuhal lazina aamanu yéen ñi nga xam ne way gën ngeen yàlla isa noodiye ndem woote na mooy ndem noot def na islaati jëm ci julli mi yomil jumaati ci bisu àjjuma bi maanaam fii yomil jumaati bu loolu amee fasaw na gaaw ilaa sikirlaay jëm ci julli ga moo tax sikirlaay dafay dugal julli dafay dugal dugal sikar bi yaa ngi ko firee sikirlaay dégg nga ngeen bàyyi albay a mooy fas njaay ma fas ka rek bu kenn fas njaay bu dee ci ngirum Maalik moom dañ koy tas dafa araam nañ koy tas bu dee ci imam Saafi yu xaraam na mais kenn du ko tas moo xam jaay la moo xam leble la moo xam nu a doon bu ñu nodd jumaa nodd gi ñu xutbaa nag du gu njëkk gi de nodd gi ñu xutbaa moo tax bu dee ci ngir maale ku tas na ko yàqu na yàqu na dégg nga nee na kon salikum loolu le xëy na ko ma gën ñeel leen in kuntum dem nekk ngeen taala moo xam ne moo gën isa xuddiyat ndem pareef na ndem pareef na asalaatu julli gi fantasiroo na ngeen wisaaroo dem ci soxla yi su àdd gi suuf si ki muy amaru ibaaxa ci wàllu balaaxa wala usul amuru ibaaxa amara boo xam ne dafay dagar rek gum neex nga toog léegi na am ñoo xam ne seen xam-xam soriwul ñu sukkandiku ci nekkoon kon bu ñu jullee bu noppi toog fa daganu yàlla ne bu paree dem leen moo tax nga dégg ñu naan xam-xam bu ne posol la yu mel nii ko parce que am dafa am amal boo xam ne amal bii dafay ñëw pour daganal bii ñëw pour couper couper dégg nga comme ni léegi imolo maa siitum imolo dafa leen du leen neex xam ngeen yàlla bëggul ko def lu ko neex bëggul ko def lu ko neex borom bi ne wabtaqoo na ngeen sàkku nag na ngeen sàkku min fadlillah ji ngeen lu yàlla gi parce que loolu laa na ngeen tudd yàlla kasiran lu bari bëri laalakum ndax kon yéen du loolu ngeen texe aaya bii nag li ko taxoon wàcci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba di su àjjuma jamono yu nag jullit jumaa xutbaam bi mu ngi mel ni jullit tabaski mooy mujj moo daan mujj léegi nag yonent bi julli na ba pare ñaar ak ay yi du xutba yàlla dogal ku ñuy wax dihiyatu alkalbiyu jógee saam ñëw indi marchandise ci jamono boo xam ne mujj na jafe na ci am fa am fa marchandise jafe lool sax te nag ne na njëgg moomale lépp lu ajoo ci jamono boobu ci ci ci waa Madina mën na war lépp mu ngi moo xam ceeb la moo xam dugub la moo xam dawlin la lépp luy ajoo rek mu ngi foon léegi mu wàcc fu ñuy wax ajaari sayti benn place la ca marché Madina mën a war a dóor tabala bi dóor tabala bi nit ñi xam ne bon njëgg ma ñëw na fekk yàlla yéen mu ngi xutba ñëpp daw bàyyi ko fa ba def fukki nit ak ñaar ak moom léegi nag ñaam ci wuute ñii ne fukki nit ak ñaar la woon ak moom ñu ne déedéet fukk ak ñett la ak moom ñu ne déedéet fukk ak ñett la ak moom yéen moo waral léegi imam malikin imam safeyu abu hanifa ahmad ibn hanbal am wuti jumaa fan lay wéree fii la fii la fii la ci saanoo ñu ne juróom-ñett ni la rek juróom-ñett ni dong la woon léegi nag bu ci ngirum malik moom fukki nit ak ñaar ak imam bi juma foofu la mën a wéree bu ko manqué du wér lu ko ëpp nag amul limite lu ko ëpp amul limite waaye lu mu néew néew mat fukki ak ñaar ak imam bi moo tax nga dégg ñu joxe cax di wax ne julli goo xam ne bu kenn yàqulee julli ko yàqu julli goo xam ne bu kenn yàqule ñëpp ci ngiru fukki ñaar ci ja bu kenn julli ga dem dem ñëpp ya wàcc aay bi nak borom bi ne wa isaa raaw ndem gis nañu tijaaratam am njaay aw lawan wala am fo in faddu ñu bëbb ñoom ñëpp li a jëm ca wa tarakooka ñu bàyyi la ñoom ñëpp Eh, taxaw dafa am benn waay bu ñëwoon ci imam Malikin, ca madina mun a ya, war ne ko yow yaa wax ni alquran bàyyiwul dara mu ne ko waxuma ko de yàlla ko wax ma farana fi kitab min cheyin yàlla ya, ko wax yàlla ya, mu ne alquran bàyyiwuñ ci dara dara dara mu ne waxuma ko dama nettali rek mu ne ko ah man yaakaar naa ne am na loo xam ne alquran ñëw ci alquran mu ne ko lan la mu ne ko man sama tur bi nekk ci alquran man sama tur nekkul ci alquran maa ne ko ah mu ne ko déedéet sama tur nekkul ci alquran imam Malik ne ko na nga tudd mu ne maa ngi tudd kooka kooka laa tudd Malik ne ñu indil indi kaamel bi mu ne ko mën ngaa liir ajin parce que mu ne liiral liiral leen ko ñu commencé ba isaara al tijaaratan ba ca wa tara kooka may na ko yaa ngi nii suturaa ngi kooka ci li gën a yéeme nag dafa mel ni moom daf ko def daf ko def daf ko def taaw xitaab boo tara nga gis kooka muy ay kooku xaay mu ay taxaw temm ne yaa ji yaa <laughs> daf ko def taaw taaw xitaab far nag <laughs> nga gis kooku mu ne mu ne yaa jaajaara taxaw di xoole <laughs> te waa woon ca doxee mu ne kon wa ko man taxaw temm boo xam ne maa inda laa nekk fa yàlla xëyru moo gën fuuf euh, mu la ci am fo wa mu ne ak ci commerce wala yàlla xabirun aji xam la subhanallahi xëyru raasiqin moo gën ñëpp ñuy wërsëgale yàlla gën ñëpp ñuy jeex na moom ñu war a dugg ci al munafiquuna nafiq yaa ngi noonu nag jikkoy nafiq yi lay lim xam naa nag alxuraan moom bu ñëwee rek ku nekk ne la wax bu wàccee rek ku ne man la wax saa mu wàcc ma dina mën a war a fukki aaya ak benn la nafiq yi ñoo waxoon yonent bi ne ko ñun nangu ne ni yow yàlla la yónni ci làmmiñ waaye gëmuñ ko ci xol nag yàlla wàccee saar bi ne isaa jaa aka dem ñëwal na mu la almunaafiquuna naafiq yi ñu wax ci seen làmmiñ ya loo xam ne bokk la ci xol ya lu ñuy wax mooy lan nasaru ñu ngi danañu seede ñun ne i nekk yow la rasulullahi ndawal yàlla nga nangu ne ndawal yàlla nga léegi nag xam ngeen ba yàlla mu jàngale ba yàlla ne bu yàlla waxoon fii ne innal munaafiqiina la kaasibuuna xam lu muy te kon doo mooy doo yónent kon mooy doo yónent rek moo borom bi ne xoolal de wallaahu yàlla yàlla ma xam ne innaka yow rasuluhu ab yónentam nga waaye wallaahu yàlla yës mu ngi seede ne innal munaafiqiina la kaasibuuna fekkoon du doxalu ci diggante bi doxalu ci ay bii bari yi kon li mu tekk mooy doo yónent moo tax mu ne ko yàlla ci boppam xam ne yónent waaye mu ngi seede naafiq yi dañuy fen ko ràbbee nag ay nu ko ràbbee nag wala yesalu inna munafiqina la kaasibuuna jàpp nañu ay maanum seen ngéeñ mu nekk junnatan di ab pakk bu ñuy défensé pour seen alal ya ak seen deret ya fasaddu ne na duddu an sabilillahi wala si yoonu yàlla wi di nangoo jiyaati indoom nekk sa abonna sa bon na saa a na maa la nga xam kan nekk na di ko jëf saalika borom bi ne jëf ji ñaaw jooju ko waral bi annahum nekk ñoom amoon na nañ ci làmmiñ su ma takkafaroo ñu weddi xol ci weddi futu bi nag futu bi nag kasteef na eh, ala qulubi seen xol ya foofu ñoom laay xool na duñ dégg ba mën a gëm yàlla te wisaara ay tuun dem gis nga leen ah, tojo ka dana mu yéem la aji saa moom seen jëmm yi ngir seen taal ya buñ diwa seen yaram yi peñoo rek nga ne ñii ñoo fi gën waaye nag wa indi xoloo ndem wax nañu ba tey tax na nga dégg la xol yi dañoo fasaa bu jàgg deyo bu defee conférence rek nga nga nga signé waaye ka ànd mel ni que ñoom ci jëmm ya kutubun dañu nekk ay bant yoo xam ne musannadatun yu ñu wéer la ci miir yaasuma danañu jortu ku la sayaatin bépp a xaacu bépp gu boo ci ay militaire ñaaleem seen kaw la jëm waxtu bu ñu déggee jullit ñi ne allahu yuuxu yëg ñu ne dee borom bi ne moom ñoom aladuwu ñooy noon piir fasarhu moytu leen yow aleyka salaatu wasalaam moytu leen dañu siiwal sa secret xaataluhum yàlla na xalal leen allahu subhanahu wa taala anna yufako naka la waññeew leen bu duñ gëm yàlla ak layu leer yii wa isaa qil na waxef na mu lum ñaan leen taalaw kaay leen ye tafu mu jéggalul lekkum ñaan leen rasulullahi ndawal yàlla li bu la waxee rek la wow ñu dal wañ ñu wañ roosum seen bopp ya ngir rëy ak kañaan te war aaytu nga gis leen isa donu ñuy wàññi ñuy dummóoyu ñoom ñëpp ñu dummóoyu borom bi ne waxum ñoom mustakbiroon nii way rëy rëylu sawaun way yemoo la aleen ci ñoom atafartam wax xam ndax jéggalul nga loowum ñaal leen am lam tax tax wala jéggalu xoolu la yaxfira du jéggal allahu subhanahu wa taala tax ñaal leen inna borom bi laaj du gindi mukk alxawma nit ñi nga xam ni alfaatiqina dañoo gën a topp du leen jéggal mukk nag te du leen gindi yi nag amul lasiina mooy ñi nga xam ne yaquluuna ñu ngi wax naan laa tunfiqu bu leen dundal xalaa man ci ñi nga xam ne xinda rasulillahi ñu ngi koy yonentam yàlla ba boo màkka xataa yan fëddoo bu ñu tàqale koo dem waaye borom bi ne ñoo xamuñ di mu lay sax na ñeel yàlla xasaa'inu samawaati maa ngi ci ne asmaani juróom-ñaar waaye ak suufi juróom-ñaar Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul naafiq bu mag a mag a mag la ibnu Ubay moo yàqal ñu bare bari Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa déggoon ca atum ñeenteel ca gàddaay ga ne Bani Mustaliq ñoo dajee ngir xeex koom yonent bi seen njiit la muy Xaaris bun Abi Diraar te mooy bàyyi Juwariyatu jabar yonent bi kon gor yonent bi xam nga mooy bàyyi Juwariyatu bi yonent bi déggee loolu nag génn jim ci moom bañ tesee ci palaat boo xam ne dafa am am ndox ñu naan ko al murayshon al murayshon moo tax bu neexee nga ne xablul muraysi wala xaswatul muraysi fu ñu wax ci côté bu ñu wax xaddiit ca tefel ba fa lañ xeex suñu borom dimbali di mu gañee Bani Musalix yonent bi jekku leen lool jàpp seen jigéen ña ak seen doom ya nangu seen alal ya jàpp ci juróom-ñaar téeméeri nit léegi nag bañ jàppee jóore ya yonent bi jël ko goreel ko takk ko te bàyyi moo jiitu woon xeex bi xoolal bi jikk bu rafet koo xam ne moo taxaw téye jaasi pour ray la nga tunne yow takk doomam <laughs> kenn taxaw téye jaasi pour la nga tunne yow takk doomam te boobu doom jàng ca te boobu nga mu jël ko goreel ko takk ko jigéen ñi ne lii de moom sax la moom ne ba na mu léegi ñoom ñooy goro yonent bi ñoom ñëpp ñu ñu bàyyi ñu jàppoon ñëpp bàyyi ñu jàppoon ngi tëral yonent bi moo tax day Aysa ne na motumaa gis mukk mukk mukk mukk te xaw ma hin nag ndaw sa gën a bëri barke ci jooy ree mu ni ngir bu bi ko yonent bi dencee goral nañ ci ay mbokkam téeméer nit ngir bokk ngir barke moom ngir barke ngir barke noonu demee woon léegi nag Ibnu Ubay nag mer ne bu ñu demee Medina mën a war a demee ña torox dañuy génn ña tedd ña tedd ñoo di génne yàlla na ko d'accord naa d'accord naa ki tedd na génnee ko torox waaye lii masala bi léegi lii masala bi mooy kan moo tedd ak kan mooy torox waaye mën nangu naa maan yàlla ki tedd génne gi torox léegi nag kan moo tedd ak kan moo torox li li mu gëm ne moom mooy tedd nga mooy almaddiya maanaam alalu àdduna te islam li mu gëm ne mooy tedd ànd ak yàlla moo tax loolu loolu dañuy jàng noonu moo tax mu ne walakin al na waaye naa naafiqi laa yafquuna amuñu dégg-dégg yaqulun ñu ngi naan la raja la in rajaana ndem wàññeeku nañu ilal madinati jëm ca madina war la yuxrijanna dana génnee ca biti al aasu ñu tedd ña minaa ca madina al asal la ñu torox ña mun na mu ci julli ñu ñoom ñoo torox borom ne ko naa waaye walillahi sax na ñaal yàlla lay sa tuute danga gi te mooy notaay not not gi wala rasuli yi yenente bi bi mooy mooy premier ministre bi pour moom mi ñee jullit ñi ñuy gouvernement bi jàmm jàmm jàmm bu leen yàqul bu leen yàqul walakinnal munafiqina waaye naafiq yi laa ya'lamuuna amuñu xam-xam yàlla ne ko te dégg nga yàllaa ko yore mooy borom pale bi yenent bi yenent bi moo jiite moo jiite gouvernement bi mooy premier ministre bi jullit ñi ñu ne assemblée jeex mu jeex tak tak tak ñu xam ne ñoom perte nañu bi nii yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xam ne way gëm ngeen laa tulhikum bu mu leen foloo mukk nag bu mu leen soxlaal amwaalakum alal seen wala awlaadakum caageen doom seen an zikrillaah walis julli juróom wa man yafal koo xam ne eh, def na mu zalika loolu fu laayeka ñu ñoom ñoom alxaasiro na way perte yaa ngi noonu waan fi na ngeen joxe ci asaka ja mimma ci leen la nga xam ne sonaakum ñu leen ko wërsëgal min qabli an yaatiya njëkk muy ñëwal ahadakum kenn ci yéen almawtu dee gi fa yaqoola mu naan nag mi faaw sabab yu fa ca sabab sa yaqoola rabbi suma borom lawla aqartani te nga négandiku ma ilaa ajalin ba ci dig boo xam ne xaribin dafa nekk bu jegeñ fa sadaqa ma dëggal waaye ko mu bokk ma nekk min saalihiina ci way yiw yi borom bi ne ko ah, wala yu àqira du yéexee mukk nag allah yàlla na sam bekkan isaa jaa waxoon naa ko ci sortu yaasin ca aaya mujj ba ne ñaari am sa buñ dëjee da ngay bàyyi benn ba isaa jaa ajaluha isaa jaa ajuluha njàng mu rafet mi isaa jaa ajuluha mu ne ko isaa jaa ndem nga xam ne ajuluha digga bakkan ba wallaahu yàlla xabirun aji dañ kompa la maa taxamaloon ngeen di jëf am jàng bi maa yaxamaloona ñaari kon suru taqaabu ni mu ngi noonu saaru naxante wi naxante wi dafa am ñu ni saar yu jeexal nii dafay junj lu doy doy waar lu doy waar xam nga ko naa ne léegi ne la suratul mujaadala muy xasamiya mu juróom fukki ak juróom-ñaar xasamiya mu juróom fukki ak juróom-ñaar bu jóge boo jógee bàqara jëm suuf jógee bàq jógee naa jëm ci kaw mu juróom fukki juróom-ñaar ma juróom benn fukki ak ñett biñ jeexal xam nga lu mu junju dund yonent bi yonent bi 73 ans la am net yonent bi moom la am 73 ans net la am net net bi nga li liggaay bi nga net bi ngeen dégg baax bi net léegi nag ñu ne la ci topp mooy bi ñëw nax ñu taqaa bu naxante bi moo ñu nax yonent bi dem bàyyi ñu fi <laughs> bi moo ñëw nax ñu dégg nga Makka la wàcc wala Medina fukki ay ak ñaar la ni yu sabbihu dana mu sabbal lillaahi sax ñeexal yàlla ma fi samawaati li ci asamaan yi juróom-ñaar wa fil ardi ak ci suuf yi juróom-ñaar xam nga li sàbbal yàlla mooy lépp lu yelloo lu yelloo moom nga seetal ko ci lépp loo xam ne du yelloo yàlla nga seetal ko ci lowoo sax ne borom ñeel borom bi mun ko nguur gu sax dapp nag waloo ñeen ko alhamdu cant moom borom bi xadim ajaatan la ci lépp lu mën wala ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind fi min ko am na ci yéen kaafirun ko xam ne ab yéefar la ko am na ci yéen muminun koo xam ne jullit mu nekk ñeenti xaaj nag ñeent inti moo ko wax sahidallah sahidallah inti moo nee na kenn ci yéen dina jëf di jëf jëfu jëfu waa aljana di jaamu yàlla di dox mbokk di def lu baax bu leen tamu àjjana def gën wàllu meetar njëkk suñu borom dogaloon na ni safara la jëm muurtat dugg safara yàlla nañ ci mucc mu ne kenn ci dina def jëf jëf jëfu safara ñu naan kii moo bon kii moo nangam kii moo nangam ba mu xam ne diggante Mustafaa def na gën wàllu meetar ndekki ci asar suñu borom na ne ki àjjana la jëm mu def jëfu ku ku baax texe dugg àjjana texe dugg àjjana xam nga luy misaal bi mooy waa ji doon tuubi dem ba doon mag ba màggat ne day tuubi ay mbokkam mere ko ne day yàq seen dina ndax kilifa la bu tuubee ñu bari yàqule ci gune yi génnee ko muy dafay tuubi départ dem bu ci digg yoon wi mu dee ba mu deexee nag fa mu jógee ni ñoom seen dëkk lañ koy fa lañ koy yorob parce que yéefar la tuubaguloon fa mu jëmoon ni ñoom ñoo koy jëli parce que yéene bu moo tax dañ koy ba ci ñi coow yi ñëw malaaka yërmande yi ne ñoom dañ koy yóbbu ci dëkk jullit ñi malaaka yi eh, ne fa mu jógee lañ ko yóbbu borom bi ne nañ natt nañ de nañ nañ ñett bu dee fa mu jëm la gën jege fa mu jëm kon fa lañ koy suul bu dee fa mu jógee la gën jege kon fa lañ koy suul Jibril ànd ak malaayka yi ñuy natt xam nga borom mu def dafay def tayu tayu mooy fi mu jëmoon moo gën a sori borom bi leem ko wàññi <laughs> fi mu jëmoon ma gën sori fuuf fi mu jógee borom bi lem ko wàññi ko fi mu jëmoon gën jege bu malaaka yi nettee ñu xam ne bon fi fi mu jëm moo gën jege borom fexe gaa yi déggoo juboo ci ñu yóbbu ko fa mu jëmoon fa lañ ko rob mu texe mu texe mu texe am na koo xam ne ab chrétien la woon chrétien la woon waaye dafa bëgg yonent bi ba waxtu boo xamee ne daan lii seen téere yi seen bible yi gisee turu Muhammad da koy fóon mu koy bàjjal mu koy bàjjal moo tax ñu tamit daan ko waxee dafay jëf jëfu ku ku ku ne nit safara di ko jëf di tooñ yàlla di tooñ doomu aadama yi ba dee dese ko mu tuub am koo xam ne moom borom bi dana yéefar la ci la dund ci la dee mu ñett nga ko xam ne jullit la ci la dund ci la dee ñett yi nag yomb na doon yéefar dee ci ah doon yéefar ba yàgg nga tuub doon jullit dee ci xam nga ban moo jëfe doon jullit ba yàgg nga murtaat di doon yéefar booboo jafe booboo jëfe nag boobu moo jëfe moo gën a jëfe ci yëpp doon yéefar ba dee ci moom bari na da julli ba dee ci bari na tuub bari na waaye murtad mu neex a dégg bari wut de ñeent yooyu rek la ñeent yooyu la moo tax borom bi nekkoon nag am na jigéen koo xam ne dafa nekk yéefar bu faatu ci omin ku mu am noonu borom bi nii wallaahu subhanahu wa taala basirun aji xam la bi ma la nga xam ne taamaloon yi leen koy jëf xalaqa bind na mu moom borom bi asamawaati asamaan yi juróom-ñaar wala arda ak suufi juróom-ñaar bilaa xaq ci dëgg wasawarakum moo leen melal bind leen fa asana mu rafetal suwarakum seen melo yi ngeen yor ñaar tànk di moytandiku salte di sol set di lekk lu set wuute ñeneen wala masiru mujj ga nag ilay jëm na ci moom yàlla mu dana xam-xamu feeñal maa fi samaawaati li ci asamaan juróom-ñaar yëpp wala addaak yi ci suuf yi juróom-ñaar bu yàlla mu xam na mu maa tusiruuna la ngeen di nëbb ci seen biir xol yi ak xalaat yi wa maa tulinuuna ak li ngeen di feeñal wallaahu yàlla alimu aji xam la bi saati si door li ci biir dënn ya xalaat yi yëpp xam ne ko alam yaatikum xanaa dafa leen ñëwalul naba ul lazina xibaaru ña nga xam ne kafaroo dañu weddi ñu xablu ca lu jiitu fasaaxoo mos nañu wala am lim seen mbir ma ci kéefar ga mos nañ mbugal ma ci àdduna bi te waloolu sax na ñaan leen azaabun mbugal moo xam ni aliimun muñ mettital la de saalika li waral loolu man bi annahu naka luy mbir te nekkoon na mu taatihim di ñëwal leen rusuluhum seen yonente ya bil bayyinaati ci layu leer nañ ñi fa xaloo ñu naan nag abasarun ma ndax mbindeef comme ñun yahdunanaa danañu gindi fa kafaroo ñu dal di weddi wa ñu du mooyu ba ca gëm yàlla wa tax naa jolo doole na mu allahu yàlla wala seen gëm nga borom bi den man dool naa seen gëm nga wallaahu yàlla xaniyun aju doole la wala seen mbindeefam yi xamid ñu sant la ci mboolem jëfam yi borom bi ne saama déclaré na li si ne gaañ nga xam ne kafaroo dañu ne an naka lu ngir tey mbir wala an naka ñoom boog lan ñu yubaasoo defu leen dekkal de xul waxal ne leen balaa ah kay wa rabbi yi génn naa ko ci borom sama la na def na dekkal leen su ma na ba un na topp def na solo leen bi ma amiltum ca la ngeen doon jëf wa salika lool nag yasirun lu yomb yomb la xana laa ci yàlla fa amino na ngeen gëm bi laa ci yàlla rusul yi ak ndawam li wa nooril la fii ak leer gi nga xam ni anzalnaa wàccee nañu ko wallaahu subhaanahu wa taala xabiirun aji dañ ko pëla bi maa taamaloona ci li ngeen di jëf mu ne yawma yajma'ukum bis bu dana mu dajale yéen ñëpp li yawmi jamee mu yawmal qiyaamati wala moo la bis nag yawmu taqaabuni ma bisu naxante ba mooy turu bi yawmu ci yàlla wa yaamal saalaat mu jëf lu baax yukaffir dana far moom borom bi xana wali ko sayyiaati yi ñaaw téefam ya wa yudxilu dina ko tàbbal jannaatin ajjana yoo xam ni tajri dana daw min taxtihaa a suufam al anaaru ay dex xaalidin ñu da way béel fiihaa ci ajjana ya abadan faw zalika nag alfawsu mooy nga ñaan li azimu lu màggali wala si na gaa nga xam ni kafaru dañuy weddi wa kasabu ñu weddi ba tey bi si alquran ji walaayika waram bi ne ñooñu asxaabu naar ñooñu safaraa ngi noonu xaalidin ngir way béel fi aja sawara wa wa bi sa mujj borom bi ni ma asaaba du jote mukk mukk mukk kenn min musibatin ci bépp loo xam ne musiba la du jot kenn ilaa bisnillaahi lu mooy ci nameeru yàlla ak dogalam rek ama yémin ko gëm ne bilaay ci yàlla ya dina gindi moom borom bi xal boo xolam wallaahu yàlla alimun aji xam la bi ko seen lépp lu mën wa atiu na ngeen top yeen ñep allah subhanahu wa ta'ala wa atiu na ngeen top rasul yi ñent fa in tawalaytum da ngeen da ngeen du moyu fa in ma ala rasulina wa rusul ndaw li rabbal akhlu mo jital am bi ngul leer nañ harfu hasrin la mana ila al barakh da ngeen natala ila allah rabbi laa ilaha déedéet benn benn yàlla illaa wa ko dul moom wala laa ci yàlla dong lay tawakkal na ci wëngay ak moom ñu way gëm yi yaa ayyuha allazina amanu e yéen way gëm yi borom bi ne inna min azwajikum naka tukkee ne seen soxna yi wa awlaadikum ak seen doom yi aduwwun ay noonu lakum ñeel leen fahzuruhum moytu leen leen du naqa di dégg la nag duhul noonu boo xam ne day wut jaasi wala paaka di xeex ak yow xam nga luy noon bi da ngeen di wutee gis-gis mi nga xam dégg gis-gis yi moo dul moo dul benn alxuraan neexul dégg addu woon lëkkum ci noonu boo xam ne da lay wuta li mu ne mooy sa gis-gis bi da wutee gis-gisam bi li ko sababoon nag mooy dafa amoon ci waa mu Mukarrama ñu bëggoon dem ci gàddaay dem Madina Munawara ci waa Makka ay saaba léegi seen doom yi seen jabar yuuxu yooyu bu ngeen demee ñu torox bu ngeen ñuy baxee yuuxu ñu far ñu far toog borom bi nag ñu ne ay noon lañ piir la ndax ki départ jëm ci yoon yàlla bëgg dugg àjjana ab yéefar aayee ko kon boo xoolee cosaan bu ba tey wute gis-gis waaye na mu ci doon xam ne day gàddu jaar fi bëgg xeex ak yow déedéet wute gis-gis lu naqaree de la nag lu bon soobu ñu soobu dégg li ma woon de ku ñu xaw fu mun Maalik al asja'i yi sax ñu ne ci mun la wàccoon waaye nag bu moo taxoon ma kër mooy leen nag ñoo soobu nu sol bu ne ayab ji diw la wàccoon rek su gi ko laata génn nañ ci ñoom bokkatuñ moo tax jarul wax jàppal ne ku nekk yaa ko moom rek waaw ku ne jàpp ne yow yaa ko moom tey nag buñ ko yóbboo ca saxaaba ya kon ñun fu ñu jëm kon ñun fan lañ jëm képp kenn ci ñun sa soxna ak sa njaboot am ngeen wuti borom bi la wax xa dugun lëkku loo ci na mooy waaye na mu ci nag noonu bu kii de borom bi ne bu ko wa in taafu ndem nga xam ne da ngeen jéggale wa tafiru ngeen jéllale wa tafiru ngeen jéggale ba tey ba bañ leen topp xam nga loolu mooy lan wa in taafu ndem jéllale ngeen jéllale mooy lan lañ bëgg ngeen toog ngeen maslaa naxante boo ci romb leen fa dem bu leen nangoo toog seen wax ja wax ja dañ ko jëlale wax ngeen jéggal leen ñoom de déedéet seen wax ji ñuy wax jëlal leen ko ci anam bu rafet nag ci anam bu rafet wun tax foofu ndax comme ngeen bëgg ngeen toog da ngeen toog muy seen musiba déedéet jëlal leen rek bu leen xuloo di jëlale leen rek waaw na ngeen jëlale bu fexe génn ci nee na wa tasfu ba tey wa tasfu ngeen jéggale bilaa borom bi xawarun jéggale ko la rey mun aji rëy mu ne amwalukum xamal ne seen alal yi wa awlaadukum ak seen doom yi fitnatun fitna mu ngi noonu te xool mu njëkkee alal nag alal moo gën doon fitna moo tax njëkkee ko waaye gannaaw kenn bëggul ko moom waaye lu tax borom bi ne ak doom te kenn du ci doyal kenn du ci doyal xam ngeen lu tax wallaahu yàlla xëy doo nekk foofu moom ajjurun fay goo xam ne xasi bi màgg la yàlla lii moo tax alal boo ci defee ci yoonu yàlla dam na jural kenn xamul la doom boo ko yoree noonu la mel kon lii moo tax nit ñi suuf di sonn ajrun azim dong nag ak do fi ne kisi ray ñu koy doy fattaqullaha da ngeen ragal borom bi masataatum kem kattan seen kem kattan seen aaya bi moo fa la ittaqullaha haqqa tuqaati boobu njëkkoon wàcc nag saabee ni borom yonent bi loolu mu àtt nañ ko ittaqullaha haqqa tuqaati dëgg dëgg ragalam ñu ne ko mu ne leen lu tax mu ne leen loolu mooy bul xalaat dara dara dara ci àdduna xattanuñ ko borom bi ne ko nag fa taqoo laa mastata'tum képp seen kàttan waaye boo xoolee ñaari ay ba ci biir sax nag bu ci biir daanaka benn xam na koy déggee maanaam képp ku def ku def la nga man ah xàq tuqaati ñëw na loolu la ku def ku def sa kàttan def nga xàq tuqaati ndax yàlla ya. tegul ko lu mënul jàng ne wax moo na ngeen déglu liñ leen digal nag waatoo ngeen topp bu ko defee ne waan fi xoo ngeen dépensé xare moo gën li am sukum ñee seen bopp ñee seen bopp Ibnu Ubay moo waxoon gis nga kan nit ñaan ak Muhammad mi bu ñu téewoon suñu bopp kenn leen dimbale ku ñu ñoom ñu dem ñëppay dem te kan ne ni moom jullit la jullit la de sa say dëgg la woon sax borom bi ne woo man yoo ko fekk leef na ko soxna nafsi nayu bakkanam nga wax nañ ko démb walaay que ñooñu le xam nga lu woon ñooy way texe ya wa man yokk soxna nafsi fu laay ko mu muf li woon a in tuxlu doon dem lebal ngeen allah subhanahu wa taala xadan xasana bor bu rafet rafet mooy na ngeen di sadaq ci yoonu yàlla kon yu daayee fu dina ko ful lëkkum ñee leen wa yax fi dina jégal lëkkum ñee leen walaa sa koorun borom bi santaakoon la ñeen ña koy topp xaliim ku dënniiral la aalimun xëy muy xam yi fàddu yëpp wasaadati ak yi teew borom bi xam ne ko al aziz mooy ki nekk ci nguuram gi alaki maa ji xeran ji ñu taxaw foofu incha allah al azimu bala ko solol karimu